màkk bi ma amee ñaar fukki ak juróom. di <laughs> jël sama alal di ko séddale ci koñ bi ku mer ma jubale. ñaar ñu ànd ma dajale. dàq seytaane. tabax jàkka jàppale juma jubale xale yi. utal ñuy liggéey ma ne foo bi toll. fexe nit ñi di wax dëgg tey moytu fen def nga ma booy. di jàppale ñi amul di dimbali ñu yàq. ak jikko yi ku ko taxoon naa mën a jiite. Serigne. toogal rek di jiite nag bàyyi man la kañu. ah ko neex ne boo dama lay jumb laa nga naan ay Neymar. maa maa ko fii laa la ba mu déggee ne ñàkk la mu gën ñàkk fay la. kala bu toll yow amoo looy def. xam nga woo ci. maa tey maa tey seetaan man maa tey gam. jamono maa tey. boo moytuwul laa wax ma ne doo ma def dara laa wax dama lay gaañ doo ma def dara. gàmm ma kàlla bu toll yow ngay. waaw mun nga naan ndey a ak rokkam maa tey ndey maar séeréer la dong koy bañ dégg mun naa ndey maar ah, maa ne ndey maar doomu tey jox ne maar du séeréer séeréer la mu ngi ne bàyyam tudd ko seen mu dëkk fii boolu mbele ka jaw maa ne ndey la ba xam nga ne boo doonoon muskalaf dégg doo seetaan football yi ñàkk fa duma seetaan football ah, waay waay fikuraam tous lay lay fikuraam taxun waaye yow ci man dama la faale waaye merde seen diine wala dara ngeen nekk di seetaan ay football la lakum diine kum wal yad diine ba bu toll nii waa diine moo ne lakum diine kum wal yad diine lakum diine kum wal yad diine bàyyi leen poñ bi bàyyi leen poñ ko naka yàqu waay poñ bi bàyyi ko bàyyi ko ci koor ngeen nekk bàyyi ko ba xajam fateen rek ko fay bàyyi ko bàyyi ko defal nag loolee côté ñëw na ko gaa mu seeraan nga match bi bi mu ne waaw mën na ko Neymar day sigim ne séeréer yëpp ndax séeréer la ndax may Neymar bii bu mu dugal ci da ko defal séeréer yëpp ndax Neymar mi mu ne ah mën na ko séeréer la waaw bàyyam tudd Kooseen mu dëkk fii Mbele Kajaw bokk si Mbende Mbende Geraat yaa ci mbaar fa Kooseen andu dum rek ah mu ne ndey maa mukk du séeréer brésilien la. doole jiw ko man maa séeréer la tey xanaa xamul ne Céline Dion mii. ah Céline Dion. ii woykat bu bi nekk ci Canada. la. ja la séeréer la. xanaa xamoo loolu. man meneen men hebi Abu Jiba meneen. Abu Jiba Abu Jiba national la tekun international eh, la ñuy wax. baayam tudd Ablaye ba Inde. xanaa du séeréer séeréer moom la ñuy làkk ba Inde. waaw moom la ñuy làkk ba Égypte. ii moom la ñuy ba ba ana ñu sant seen. ii équipe bii bal te sant seen waa Suisse. waa Suisse ñoom ñëpp seen na ñu ñoom ñëpp seen la ñu sax yéen xaal pulaar yi kay bàyyi leen wax ji rek ne ful andoona yee ataaxa tig na taxu tak na faaxa ne fo ko ko ne ci kanam ta na ko ko faaxa ne ko na na faaxa tig na ko tak na faaxa ana ko fo ne tig faaxa ni ko ko na faaxa ana tig ko tak na fo ko na kan yeku ni dafa ana ko don don faaxa don don ni faaxa na fukuro ana ka faaxa ne tig ko tig ko na ka na na faaxa na fo ko to on to ko fo ko faaxa na to na ka faaxa tig ko wa yaa ngi toog toogal toogal ah, dama jàppoon rek histoire dara jaru ko ah histoire dara jaru ko gis nga yàlla sax moo def lii sax bu amul woon sax buntu bi ma lay wax doo ko xam ndax xam nga ne ñoom Haalpulaar yi dañoo bëgg a jiite boo xoolee ci quartier yu mag yëpp boo fa demee nga laaj ci chef de quartier bi xalpulaar la dëgg da dañu koy njëkkante boo demee ci jumaa yi ñoo koy te ñoo koy jiite yala def na indi nag xéewal bu mag eh. comme ka dañu bëgg jiite rek di jiite ci kanam nekk ci sab yu njëkk ya waay wene ka ndoof waay xam nga lu xew eh. waaye joo xam ne daal yàlla ko dimbali at bu ne day ñëw ci koor gi dégg naa jumaa bu mu jar ba bay fa xaalis ay millions yuy wat lay doon ay million yuy wadd lay doon ay millions yuy wat lay doon nit di for ba doyal te comme ka ñoom xalpulaar yi dañu bëgg a jiite rek ci kanam bay leen ñu nekk ci sap yu njëkk yi ñun séeréer yi ñu nekk ci sap yi ginnaaw su ko defee bu waa ji ñëwee waaw su ko defee bu ñu defee suñu ñaari rakka ba man na asalaamu aleykum asalaamu aleykum fekk gis waa ji ci ginnaaw ñu yoxosu nan kaareer yi waree <laughs> ka baaxaat mais kaaga tigoo kat aka bu ñu jiitoo rek ñu daal di an nekk ci ginnaaw daal di anarier <laughs> jël suñu xeewal bàyyi fàtt couleur yi bëgg jiite halpulaar yi bu ñu génnee kuy perte de ñoom ñooy a ñoom kon jeex na plan bii moom plan gënu koo rafet rek nafa na ka fa na ting na taw tak na fa na ko ko sekere ndax na fo na lamine ko fo na tak na fa hata ina kan dol dol fo hata me me ja fa na ata no ko ko mi kay elay ki da moom dafa door sax ndax biñ ko gis nga ko waxee ne ko Neymar brésilien la waroon na ne chinois yi ay xaal pulaar nañ ndax jet li eh. biris li nu ñu sant li Haalpulaar boo gis chinois la. waaye <laughs> seen bët yi ni muy séwee. dama ne yemal ci loolu rek laa la wax. donc bu ko mënoon tontu kay taxaw. waaw. tànk ak tànk mbagg ak mbagg ngeen fay portable yi. waaw dafay àndoon si dund bi la bokk. bismillah boobu. sabullah sabullah allahu la shara la ilaha illa allah salanna muhammadan rasulillah hayya ala salaati hayya ala falah qad qaamat salaat allahu allahu la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله الله أكبر صلى الله عليه وسلم ربنا ورحمة الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ala waati jàmm. amiin. lan di def Faatiha juróom-ñaari yoon yaa Latiif. yal nañu yàlla sàmm sàmmal njaboot bi. amiin. ndax suñu koor. amiin. ñu kat dafa am yitte yoo xam dañ koy dox dañ lay bàyyi nga nekk ci ñaar yi. waaw waaw waaw سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إمام الواد جم قلم يق الله جم imam balaa ñuy dem nag oh. am na waajo xam defoo kon dafay ñëw oh. fii indi asaka kon ngeen bañ a dem ah, waaw nañ leen ko kaar ah. xam naa di léegi ah. nañ toog fii xaar ko benn yoon toog fi kan ah maa ne olof Njaay neen boo gisee yàqu daa mu dee séeréer yi du neenum neen seen génn bi du neenum neen haali eh, eh, goonga de haali ah, goonga tig parce lu tax ñoom mënuñu ah. ñu dem non am na lu tax gis am na won sa yi nga kam na daleen fekk am dem ñu xool ñoom fan lañ dugg waaw nii la ñuy jahen gaare eh, tan gaare tan e mbaɗe sese tan mbaɗe sese salamu aleykum a sin minde della kar jakkade mo somi ñewo mo waka imam ne ko nanño fekk sila pour affaire asaka ɗum no wara jom ma xaar leen ba sonn. ñun kay génn nañu kay. ci jàkka bi toog da ngeen a yéex a yow da ngeen a yéex a boobu. am na sax ñu wàcc ñu génne si jàkka ji ay ay séeréer lañ xool. kat mi ñëw ñu naan. quatre millions. waaw quatre millions quatre millions foofu séeréer la. quatre millions waaw day ne quatre séeréer day ne asaka da nga ñëw ba ci imam nga jokk ko. imam ma ngi nii ma nga jokk. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw sama jot moom mooy mooy moomoon nañu ba sa jàkka ja. booy seddel booy seddel asaka yi bu ko jox benn xeet. waaw kay. a tottat seereraaɓe o jolfo saako yi kay kana cina bokko meegi joɗi teɓrik sella sawate mamani dogo mamani reere e teɓa jeehna bi fota dem no deet koolal asaka le boko dugolaa ginnaaw demee nii. waaw bu leen agaree ko séddoo. waaw góor waaw góor la waaw waaw waaw moom góor la waaw waaw waaw maa ngi jégalu dégg naa. Eh, waaw xam ngeen kii bi voilà bu baax xam naa bu soobee yàlla. ceeb bi man duma séeréer tukulóor pire la. dëgg la dëgg la ko séddale. Eh. ndaxte rifi seer la. kon du ko lekk bàyyi sa morom baaxul. léegi nag aussi bu ndox may kuréel eh, bu subaa yéen a ma wax ak bu dee. jërëjëf woon ci jàkk bii de. waaw jàkk bi bul dem feneen de. yàlla tere yàlla tere ay Thierno. Uh-huh. ñu jébu ceeb bi ñu ñu ko liggéeyantu ko xaalis. Eh, eh, eh, Naves dénkaan leen ceeb bi fii ngeen ñëw ñu jëm. naat ñeent. wax leen imaam nee na imaam nee na ngeen teel ko saa bu. njaalu leen seen. njaal leen ngaree njaxeen. wallaay man yàgg na ci ñoom booba tey lu ñu pël du mbokk pël jaam ñoom rek ñooy jaam. अरे गाय पर ah Abdoul Sane gis naa la du ma ne la. boobu boobu

séeréer yi dañoo yeewoo yeewoo yeew ba yeew leen. wallaay wallaay wallaay gis nga sama un million yi. xam nga lu ma ci nar. di ci togg pombiteer di ko soos. di ko ginaar di ko miswi di ko soos. di ko bulet di ko biftek di ko di ko di ko berndeel. kon nga séeréer de. Ah, séeréer de yéen a ngi bu ma amee hmm. su ma si jeexee suma sëriñ lu des ma jënd ñaari mbaam. non kaanu mbaam dafa la des. bàyyi jën yoon wi de wallaay bàyyi jën yoon man daa man samay un million yi dégg ba del jëm ah. ci ay nag ak engrais ah, waaw waaw ma dégg del jëm ci ay nag dama koy so ay nag yu bari laa ngi jëm di yar dama koy so am nag mooy alal bi boo ma séeré daan ay la xam de père séeré moom nag ah, père day zam rek père moom day zam nag day géré bu million yëpp lay so kam ngeen lu ko woni responsable serraɓe man may responsable eyyi ɗon kalis o toto kalis o da ngeen di def nag doole ñëw yor seen jaasi mel ni ku dem alkayda li mooy la yow yaay responsable bi man laay responsable la law sama porte parole mooy wax ak yow wacce wax la lan ngeen bëgg su ngeen li ngeen bëgg lañ dul def ah. xam ngeen lan ba jiite jotee yéen a jiite lay de kon nag bu magasin bi ñëwee ñun ñoo koy nanti yow wax dem dem jëlee ñu dafa may déglu ma la wax yéen a njëkk a jaay affaire tiliya waaw waaw yéen xam ngeen da ngeen ñoo njëkk a kompolo moo tax ngeen jël bambara bi dugal ko seen biir yéen ñëw suñu lu fi jaar kii nga bu yeb kii nga bu paaka loolu yéen i sawaas la yéen i sawaas def ngeen def foofa xoolal sa waay man man waxuma ak loolu xaalis dama ne aan xaalis bi nga xam ne caam de ko joxe. waaw waaw waaw. calme ko ba mu gis. calme waaw. loo ko irimaar nga koy teg nga a. na ay naa na taxaw. xam nga dañu yor fan jaasi. dañu yor fan jaasi. xam ngeen ne pël cosaanam jaasi la. waaye séeréer cosaanam tur la. junni la yàlla boole woon encaisse ngeen xaalis bi bari joxal imam xaalis bi mu set imam bi ko jox dafa am loolu kaaga jëkkee su leen taful loolu rasulullah tukulóor buuru tukulóor séeréer buuru tukulóor séeréer buuru tukulóor séeréer ñu ne diggante séeréer ak tukulóor séeréer yi nax nañ tukulóor yi jaar ca gannaaw dem jëli zakkaat bi te waxut leen ko ma yaakaar ne jullit bu nekk dafa war a yéene boppam lim wa lim dafa dafa war a yéene mbokkam lim yéene boppam yonent bi lool la wax laa yu'minu ahadukum xataa yuhibba li axiihi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn koo xam ne sa gëm yàlla dina rafet lu dul ne li nga bëggal sa bopp mooy li nga bëggal sa mbokk kon balaa bu ngeen di dem jël jëli asaka yi ngeen woote yéen ñëpp amul tukulóor ak séeréer tukulóor ak séeréer en même temps di nga ci gis ne entre tukulóor ak séeréer c'est lu baax la lu rafet la kal yooyu lu rafet la ndax tukulóor du def séeréer lu bon séeréer itam du def tukulóor lu bon joolaa du def tukulóor du def séeréer lu bon séeréer du def joolaa lu bon te bu ñu ko xoolee doomu aadama yëpp ay kal lañu war a doon yonent bi moo wax ne kullukum li aadam wa aadamin turab la fadla li arabiyin ala ajami illa bi taqwa wala al aswad ala al abyad wala al abyad ala al aswad illa bi taqwa yéen ñëpp yéen a ngi bàyyi ci aadam aadam mu ngi bàyyi ko ci suuf kenn gënul kenn loolu la ñuy tuddee at tafadul kon loolu nekk na loo xam ne lu rafet la nit ñi ñëpp ay kal lañu ñu doon xam ne ñun ñëpp ay doom aadama luñ ñu yéene wante jàmm bëggante jàmm bu kenn xas kenn bu kenn dóorante kenn loolu àdduna bi nekk ci jàmm loolu mooy li xam ne moom la ñu lislaam sant fukkeelu guddi bi ak ñett moom itam da ngay julli fukki rakaa rakaa bu nekk nga jàng fatiha nga jàng suratu nasri juróom-ñaari yoon mooy al mooy mooy izaa jaa nasrullahi wal fathu nga jàng itam al ixlaas juróom-ñaari yoon mooy qul huwa allahu ahad allahu samad kon yal ñu yàlla nangul nangul leen asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu